31 décembre lay doon fii ci arène nationale diggante Boy Diop mi nga xamante ne bii déggagul muñal ak caatu ngewel mi nga xam ne ku taxaw ci yoonam mu fel la jàll ndaw combat bu rëy le décembre ak Ndiaye production fii ci arène nationale cay Ndiaye production TDR Events vous présente le janvier fils de Bala Lacrosse drapeau Ousmane Sakal Dieng maire de Sakal ñàkk jariñu caatu drapeau Ahmadou Bamba directeur général de l'artisanat deux grandes Diamonds le 14 janvier sponsor officiel établissement Touba Darou Rahma Jinourula Touba Darou Salam Karo Tampico Huile Global Textile Kër Arab Business seen Demba Thiali seen <laughs> wala seen Cukli ah, ngi raayoo di <laughs> Mbaye ngi raayoo di Xalil ah, <laughs> defal ni pël ma ngi raayoo de ay waay raay Falay Bal ne ko raay maa ko raay ma ah, Xalil génnal mbay guy gi ah waay mbay gu gi moom teel ngaa raayoo di climat France bi la ñu gul sa yaram ngay raayu <laughs> cee lamb <laughs> ah? abu mbay mi daa mel ni ah. non climat est ce que jotul jotul avance ba nekkee France. est jotul avance. looloo jar li jënd. mbay est jotul avance. looloo jar li jënd. mbay mbay daal li weex yi dina tax di. daa fa kii di mbër. mbay daal li dina tax de mbay. abu mbay day lamb. <laughs> Eh, mais nommoon naa ko nag. waaw waaw waaw dëgg yàlla ko réew mi wéetoon na nag. waaw doomi réew mi la ñu ah waaye Abdou Seye a ngi laalal fu ne de cey Abdou Seye. daal lii nga doon wax gisal daal yi. daal de laal na. ma ñaan laal. bulu ban baa du laal. <laughs> Abdou réew mi nommoon nañ mbéy guy yi. waaw nommoon nañ ko lool. waaw dem na si jàmm ñëw si jàmm. mooy loolu mooy suñu réef loolu la ñaan. Uh-huh. muy doomu Sénégal di doomu réew mi. Uh-huh. lii objectif ah Abdou Seye ngi takkee fas de man Modou Anta man li ma jaaxal man kii dafa jël avance wala lu mu doon. loolu jënd ma fas de ci Abdou Seen ndeysaan da ko mbërëm la de seen eh, Demba Caali seen seen cukkili mbergaan wala mbergaan sere sere njaay njaay lay taxawee naa la doomi réew dara ah, ah, pare ngeen ah ah ci mbokk ngeen jëf ñu leen di nuyu di leen ziar di leen kontaane ni ñu koy defee saa su nekk rek noonu lañ ko defee ñëw fii nga xamante ne mooy aéroport Diass jël si champion daanaan muy mbay guy gi mbay dafa génnoon réew mi dem fi nga xamante ne mooy France préparé ji wala boog mu dem gëstu li nga xamante ne mooy réew moomee ndax nee na Ndakaaru bàyyi kenn moomu ko waaye France it bàyyi kenn moomu ko Mbaye ko wax ay waxu Mbaye la mbay nag nee na la xew France moom moo ñu ko mun a wax ndax moom moo demoon ñun demuñu te nee na foofu du fii mbay mu mel dafa def ay rocc lèvre rose mbay nag léeg nga fee de mbay ziar nañ waaw maa ngi sant yàlla pël di wax jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf maam si Ibrahima Fall Lamp maa ngi gërëm sama sëriñ sëñ Tafa Diouf borom boox ak Njaañ di nuyu waa Bawal nuyu waa Réfane fa ma dëkk susuma nag waa midina 1 ba 45 Fass Colobane Gueule Tapée ma kenn. maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di leen nuyu yéen yàq naa seen temps ngeen ñëw boobu ba léegi di ma xaar vol bi xaw a tardé ah maa leen di jégalu ah di nuyu bàyyi laat sama doomu ndey sama xarit Abdou seen sama doomu ndey sama xarit Fallou borom mafia leli bi moo ne ne moo jiite affaire yi quoi Fallou waaw di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu nag sama mag bi ma jóge muy Tamsir ak soxnaam Awa bi ma demee toppatoo nañ ma taxaw nañ ma maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax di leen gërëm su suma nag sama mag Tamsir aw ma fayam quoi man am naa mag bu ne France mais ñu bëri xamuñu ko waaw mais maa ngi koy sant bu baax a baax a baax taxaw na ma jàppale na ma su ma demee lu ma laal mu ne ma tegal waxal loo bëgg ma defal la ko maa ngi sant yàlla daal. waaw di nuyu it nag sama pappa sama xarit kenn ci man muy sama pappa Dieye mu ngi ma bàyyi Paris moom itam danoo juwaloo quoi daa ñëw. fekk may génn maa ngi koy nuyu bu baax moo njàmme Ibrahima sama papa Dieye aw ma fayam maa ngi koy sant bu baax a baax a baax ginnaaw yàlla bu lii yëpp amee ginnaaw yàlla moom la quoi sama papa Dieye. macha allah dafa génn préparé ji combat Mbaye dafa demoon découvrir li nga xamante ne mooy réewu euh, France lan moo yóbbuwoon Mbaye Mbaye lu muy waaj. ah mais tey jii xam nga tey ñu ngi ci làmb di góorgóorlu yàlla def ñu bay sunu waar ba ñëpp xam ñu tey jii yoon la ñu lijjanti sunu bopp dem fi ñëpp di dem. dem xooli lu xew ci dëkk bi day yokk sa xam-xam yokk sa niveau quoi waaw kay loolu la woon rek. foofu ak fii. waaw wàllu entraînement mhm. Mhm. am na différence. waaw am na différence bu baax si susuma nag ci wàllum récupération bi quoi foofu moom naa doo dégg bruit doo dégg dara France gisuma fa weñ weñ amu fa <laughs> ah lu tax lool. France gisuma fa weñ gisuma fa mbóot. Ah. waaw fi ma nekkoon man gisuma dara. ngelaw laay gis ak ab sedd ak dëkk bu rafet. looy wax ni. kese. maanaam kon yow li nga bëggoon a dem. Mhm. maanaam da yéex a dem. non yii pas yéex a dem sax xëy na lu jot yomb ko nit du xëcc lu gënul ci moom. Mhm. man dinaa dem fépp. ci kanam tuuti ci kattanu yàlla damay dem fépp incha allahu rabbi. mais Modou Anta ne da ngaa laal ay lèvres loolu ngeen foog rek man aw ma temps boobu. fi ma nekkoon dafa neex yàpp laa doon lekk ginaar ay hamburger ay merguez xam nga li ma la wax eh. bu ma la palaa yi ma doon lekk lépp a ngi sama téléphone fii lekk yom vitamine rek laa doon lekk boole kook entraînement xam nga li ma la wax loolu mënu ma ko continuer aw ma budget xam nga li ma la wax li ma doon lekk foofu aw ma budget Sénégal fii barke Seydina Mohamed lekk yooyu boo koy lekk da ngay changé sa lépp ay changé mbay fois booy wax nga naan ndakaaru bàyyi kenn moomu kenn moomu ko mhm. mhm. moo waaw li ma dama koy dama koy loolu dama koy jox képp ku naan ndakaaru maa ko moom rek te moomoo ko képp ku ne ndakaaru maa ko ndakaaru kenn moomu ko su suma yéen nag yéen ay yokk affaire yéen ñii parce que yéen dem ci nit naa ko yaa moo kenn moomu ndakaaru fii bàyyi kenn moomu ko ñun man ndakaaru liggéey naa fi tey ba am fi kër ma samba xamut ma demba xamut am naa fi terrain est-ce que ñi koy wax am nañ fi terrain te ñiy wax ndakaaru maa ko moom yëpp dañoo luye alors leneen lu fi am tey jii fii kenn kenn moomut kenn ku xewle nag bés booba yaay borom kenn ñun dañuy toog suñu kër ne teg nga yëngal dëkk bi ba mu yëngu dem lu la yàlla may nga jël mais bu ñu xewlee yow it da ngay xaar ñoom moom Ndakaaru ñun. <laughs> maanaam ah. ku xewle woo waaw yaa moom Ndakaaru. merci. waa kenn bu ko aakimoo. non kenn da ko mën a aakimoo kenn mënu koo aakimoo bàyyi kenn moomu ko ku xewle yaa ko moom man maa ko wax te loolu du ma ci taay sama logo la. ndakaaru bàyyi kenn moomu ko France itam bàyyi kenn moomu ko ku sa heure jot nga dem ak feneen waaw. ayca am na solo mbay dañuy ñëw balaa ñoo ñëw tamit ci euh, li nga xamante ne mooy tukki bi entraînement yi wax nga ci lépp nga jugee ci Marley nga dem tukki mbay fan la jëm wala boo Mbaye ñu ngi koy contacter ñu ngi ji ci ay adversaire wala boobu ba léegi gars yi waxuñ la. ah mais gars yaa ngi wax boobu ba léegi depuis mu bëree ba léegi ñu ngi wax. ah waaw ñoom seen bàyyi laat ñii xam nañ ci dara ak papa Dieye man kenn du ma woo boo ma wooyee aw ma lu ma lay wax booy wax da ngay wax ak papa Dieye wala papa Badajon maa ngi nuyu sama papa Badajon ak sama papa Daouda Sarr ak sama papa Abdou Aziz ale Ndiaye itam maa ngi koy bu baax ak Baye Ndiaye rakam quoi maa ngi leen di sant di leen gërëm waaw ñu ngi may wax ay combat xam nga mais man maa ngi toog di déglu sama staff rek. ñiñ lay wax da laa arrangé wul wala arrangé wul sa staff non ñiñ may wax ñëpp arrangé nañ ma xëy na ci ñoom mais man ñin may wax ñëpp enragé nañ ma man dawuma kenn waaw. mbay dem tukki mais euh, am na ay làmb yu fi jot am. Mhm. yaa ngi doon concentré wu ci làmb ji di seetaan wala nga nekkoon ci say entraînement. maa ngi doon seetaan boo demee entraînement ñëw récupéré toog sa téléphone ngay ne seetaan naa làmb yi fi am yëpp neex na macha allah ñu ngi fi encouragé Diène di ko wax xëy na lii moo gën ci moom boo amee beneen combat yal na ko yàlla may ndam bébé Diène itam ñu ngi koy encouragé di ko wax ne xale la lii bu amaatee beneen combat it ñu ngi ñaanal yàlla sunu borom may ko ndam quoi xëy na loolu la yàlla bind seen jë ne loolu mooy am quoi maa ngi leen di ñaanal seen defet yi doon seen mujjantalu defet quoi li des yëpp doon ay victoire waaw. Euh, ayca léegi maa euh, félicité it Coriace Coriace maa ngi koy félicité bu baax a baax a baax waaw. Serigne Ndiaye 2 maa ngi koy félicité quoi. Mhm. foofu entraînement yi nan la ko doon waaw dama doon def deux séances ah ma xëyee damay dem saal ngoon jot ma dem def boxu mais boxu bi génneewu ma ko quoi. waaw parce que dama làqutu bëgg see liggéey quoi parce que nee nañ ma lépp mat na boxe bi moo des léegi maa ngi ci doon làqutu di ci liggéey loolu dama ciy def cote rek ba combat taxaw. incha allah kon nii nii nii nii ko joxoon combat ne ko ci biir semaine bi nga bëri. suba mën na maa bëre suba. mbay pare na. waaw ah, xool ma rek ba xam pare na pare naa bu yàgg pël. <laughs> non pare na ah. man bawal daa topp sama ginnaaw de. ak Midina. Mm. Ndakaaru yaakaar ma xam nga li ma la. Sandaga képp kuy commerçant yaakaar ma Cheikh Thiaw sama doomu nday sama xarit petit promoteur it maa ngi koy bégee di ko gërëm petit sama doomu nday sama xarit waaw doomu ndey Kalso Fallou Fall tuuba sama doomu ndey sama xarit itam waaw mu nga siin doomu ndey Modou Anta ñoo bok rek maa ngi moo yow a ay nit Abdou Tall gaa yooyu xam nga ah. ak baax yaay cargo ñu ngi siin maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax mais ah. petit promoteur sama doom nday sama xarit kenn du moom. dara <laughs> sama xarit la waaye du nitu dara. déet waay ah. petit borom siin de. mbay chaque fois si waxam danaan dañuy fekk koo xam ne def fi dara. Mhm. ñu koy woy fekk fi ku fi def dara ñu bëgg koo fàtte ci làmb ji. Mhm. yow tamit chaque fois loolu sa communication lay bokk lan nga gis ba chaque fois rek noonu ngay waxee. waaw boo gisee tey jii ñuy wax yooyu baat làmb dafa toll foo xam ne tey jii da ngay jël mbër yi nga xam ne ñii ay mbër lañ nga wax seeni qualité. mais doo dém jël ay mbëru Findifeer taxaw fee di leen tagg di ko teg ci kaw ñoo xam ne buñ demoon géej dix combats cinquante combats duñ daan duñ niil xam nga li ma la làmb ji faw ñu teg ko ci yoon ñii de ci plateau yi nag ñëpp dinaa leen teg seen place ah. waaw parce que yi ñuy def bu dee mbër yi dañ leen di mosal dara man mosalu ma nit kuy toog ci palaatoo mm. ku wax ci man it waxal loo xam ku waxut yaa xam waaw man mën na maa geenal sama bopp bu dee léegi lam ji daa may mafia ak yooyu ñun mafia bu wow koŋ la ñor mafia gëm sa bopp wax dëgg waaw boole koog di lelli lu leer. da ngaa gis toog ci plateau yi dafa am nu ñuy. non da ngay non ñiy ci plateau yi da ngay gis ñu jël benn mbër di aj yow fii moom xam nga kana fi def dara Modou Lo ak Boy mais war a bëre tey ak ñoom Tapha Tine mais à part ñooñu ñu jëm ci suuf defagun fi dara bu ñu demee ba tollu foofu kuñ ci tag garaawul dañuy xam ne kii def na li ko war mais tey ji da ngay gis benn booy bu jóge fee rek yor quelque nit ñu ko topp ñii di geer ñii di tox ñii di naan gars yi déclenché kii a fi neey bruit làmb du loolu xam làmb lan la gëm sa bopp liggéey lëlu daraay caaxaan nga bañ cee nekk bu làmb jotee nga def fulla ak fayda ñun foofu lañ toll te dañu am gëm-gëm ci làmb boo xam ne tafaatin ci kàttanu yàlla bu jëlee roi des yóbbu ko bawal bu ci doyalee man la koy jox ma doyal jox njaay tin wala keneen wala keneen wala ñoom bébé jéen gaa yooyu noonu mais ñun dañu gëm suñu bopp. topp xaaroo leen ko leen tàntal xaaruñu ku nu tàntal di jéem a wax lu baax ak ay kii ay diw ak ay kii bu waxee ren balaa waxati diween waxuñ ci ñooñ suñu yoon newul ci ñooñ. kon ñu fi wax ren balaa waxati diween non xam nga man damay seet déggoo ma de damay seetaan lam mais léeg damay xool sax gis ñaari moo nga wax ñaari moo ma cité génn am ñu ne extérieur ay xaw ma nan ñiy def laay yi ay cote waaye. ay code sut kooku def rasta yi code sut baakar moom la kooku xamul dara ci làmb day wax lu ko neex rek li muy wax dara du ci dëgg xam nga day xool mbërëm yaa ma neex yor say mbër di aj fii ñun lijjantiw ñu ku ne ci internet bi yor say nit di leen jox ñuy ñuy yëkkati sewtu neewuñ ci yooyu xam nga boo waxee ci ñun nice boo waxut ci ñun nice ñun jegeew ñu làmb fu nuy ragale wala dara parce que dama seetaan benn interview mu am lu mu teg ci man wax loolu seetaanu ma ko woon bërki démb laa ko seetaan bi ma toogee xam nga foofu dama am temps dama ko seetaan gis ko muy wax wax ci koo xam ne xamoo ko tey xamoo ko suba ci làmb nga ko gis rek di siise waaw kay. làmb yi fi gis fan yi ban moo la ci gën a neex ak ban moo la ci gën a xaw a déranger boo xamante da nga naan bu ma fi nekkoon nii lay demee wala bu ma sañoon lii la lamb yi bëri ah lamb yi neex na de Diène Kairé Sarko neex na am na ambiance ak kanaat combat ba na ci topp soqu ak Jackson boobu it neex na quoi mais daal yaa ma gën a xam lambu jàmbur moom man awma leen lu ma ciy détail sama rëg-rëg bombardier waaw boobu it neex na trop ñu ngi leen di encouragé di félicité ñi daanu mais daal man fi mu ne nii xamal lu may wax sama combat laay xaar waaw kay man ne leneen. na du wax si birima mi ngay wax kooku birima moom. man waxuma kenn de. man maay wax man am na birima mu neesu am na birima mu neesoon marché di. Ah, mais birima ci làmb ji Jackson ko mais ñun am nañu birima muy jaay ay bagage su neesoon marché yor place magasin. Ah, di jaay mais dañu ñëw ci cinq adversaires potentiels yoo xam ne mbay guy leen a bañ. Mhm. premièrement bi ma lay laaj mooy birima mi ci benn baat bi bu waxee ren balaa waxati muy. kan mooy kooku. Jackson bu géej waaye loo ci wax yéen ñaar. comme combat. ah mais combat la. léegi. ah loo wax ci seen combat yi ñaar Jackson. parce que am mais defal ndag combat la leneen amu si. pare nga pour bëri ak moom. bañ a <laughs> nañ ma fay. bu la fayee nga jël avance su Jackson. ah mais tamit nag Modou Anta man yaaw jaal sax ma fayee lu ma jaral ma jël avance am bëre. ok bu ñu jógee ci Jackson a neex. Uh-huh. jeexal na leen yéen xale yi lan nga ci wax. ah mais moom moo ko teree neex kooku moom bu ma ko amoon saa bu ma xëyee caakri laay defar rek naan caaxaan a <laughs> ah, waaw parce que damay xam ne kii day neex ma xam nga mbër muy song la waaw day fel lool da ngay dem fel ñoo xam ne pare parewuñu ñun dañu pare ne keek waa dama man luy sama yoon ci booy ñaak lagros ak keneen sama yoon newut ci ñooñ de <laughs> ñooñu ku ma ci ne niip nga ne ma niip doo def dara pour ma yombalal la ko neex yomb na lamb ji fii lamb ji lamb ji fii coow lee bëri rek mais billaahi wallaahi wa taalaahi laa la wax ah. yi aj ajal ay nit mais gisuma fii làmb ji man man mbër moo fi ëpp doole du ci ay wax nii ak wala ay wolima gii ku ma ci seqa doon maa nga jàpp sa gémmiñ barke alxuraan loo teg mën naa ko yëkkati loo def mën naa ko def. maanaam kon su ma déggee làmb daa xaw a yàqu quoi. non làmb ah, làmb yàqu na yàquwut aj ajal am na fi dëggal sa bopp gëm sa bopp am na fi. non Moussa Ndoye it combat la mais Moussa Ndoye it ka bàyyiwut bëre. Moussa Ndoye ba mu bëree Sa Thiès ba léegi ñaata at. 2021 2021 ba léegi ba 2024. 3 ans. fan la ne. France ah, ah ah mais soo jiwut làmb moom làmb la rek man daal pare naa pour bëre bun ma sama papa Dieye daal ku mu ne ma avance bi ñëw na man xal marle mi dama toog sama papa ba doon woo ma ne ma avance bi jël naa ko ma dem liggéeyi looloo ma ci war. ba yàlla suturaal ma man lu man lu gën a dem déggoo ma man lu ñuy gën a dem làmb di ma gën a xam ñoom ñëpp pare naa. képp ku ne ci làmb di bëre pare naa pour bëre. dégg nga abu nee na Alioune kuuru Baye Fall. non Alioune Seye sax mën nañ ñàkk a bëre parce que xam nga tax moom maa moom ñooy ne kër Papa Dieye chaque màggalu Daaru Salaam di togg di yàq di jël di yóbbul sëñ bi di àndandoo xam nga non man may porté géejawaay ah. géejawaay ku ko moom. kenn moomut géejaw eh dama ne bul ma jaxaseeg Balla Gaye géejawaay kenn moomu koom déglul man géejawaay sama papa Assis Ndiaye sama papa Dieye ku leen gën a foor géejawaay looy jaay ñoo la ko te ñoom fa lañ dëkk te man tama terrain bi ma lay wax foofa laa ko am loolu leer na. ayca mbay ñu ngi lay jaajëfal di la kontaanee ma bàyyi la ak suñu mbokk internet yi rek nga nuyoo mbokk yi xamal leen ne nag mbay guy gi is waaw mbay Gouy Gui is back le retour de Sénégal maa ngi bëggee ñëpp di siyaar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm non c'est français nice ah oui maa ngi bëggee ñëpp di bëggee sama mag Tamsir maa ngi koy bëggee waat bu baax a baax a baax a baax taxaw na ma jàppale na ma mook soxnaam Awa doomam yi Xaadim ah yaa ma gën a xam sama maam May Njaay ah ak Maya ñoom ñëpp maa leen di bëggee sama famille mag yooyu daal maa ngi leen di bëgg baax sama mag Tamsir bàyyi laat mi sama doomu nday sama xarit kii aw ma am kii Ndakaaru Njaay bu ma xasee dugg lekk gu dugg sama gémmiñ moo ko jënd xam li ma la kon sant yàlla maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant Abdou Sène moom waxuma Abdou Sène waxumaay waxam kii kenn la ci man kii moom yaa ma gën a xam mention spéciale ñoom Fallou maa ngi bëgg nag Cheikh Thiaw sama doomu nday sama xarit maa ngi maa ngi bëggee Mor Baye Fall sama doomu nday sama xarit bu baax ñoom Ahmed Gambie Cheikh bu mbay guy gi xam nga avion bi bi mu jógee ni nit ñi def laa def dañu ne jàkk toog ma ne jàkk toog mu jóg man lii may gis nii bu ma toogee ki nit luñ def loolu laay def bu nu yooxu woon it ma yooxu leneen amut maa ngi gërëm ñëpp pël di ñaanal ñëpp jàmm xam nga di waa Midina 1 ba 45 sama mafia bi sama mafia midinaa bépp maa leen di bëggee aw ma seen fay maa leen di ñaanal jàmm bu baax a baax a baax a baax a baax ñoom Bamba mafia Carinage bi aw ma seen fay di ñaanal ñëpp jàm di wax Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg sama papa jiyee nag mention spéciale lii boo amee ginnaaw yàlla ak bi moom la maam Góor Sàmm maam Góor Sàmm maa ngi koy béggee bu baax a baax a baax di béggee képp ku deretu bawol bawol di daw sa yaram rek maa lay béggee booy ñaa Modou Lo lamb ju neex la mais c'est le meilleur gagne ku wax nag mën ngaa c'est le meilleur gagne. <laughs> ah je ah, mbokk jërë ngeen jëf c'est le meilleur gagne. lamb jooj ku ci wax rek mën nga juum parce que ñaari mbër yëpp pare nañ. waxaata loolu ñoom ñoom ñaar. ñoom ñaar c'est le meilleur gagne Modou Lo Boy Niang.